dal leen ak jàmm te ji yéen kaay xibaar yi bëri la ñu fësal seen xel mu njëkk muy delta omicron polio ak njàng mu loof mi nag moo gën a fës ci yéen bi Sud Quotidien mi ñu xamal ne kat atum 2021 kat moom dafa tàngoon jir suñu naataango ne atum 2021 nag liñ ci mënoon jàpp moom mooy variant yi delta ak omicron bi nga xam ne kat ñoo tax mbas mi daal di gën a fii ci biir Sénégal mbas moomu sax mu ngi njëkk a feeñ ci Sénégal ci mars atum 2020 rax ci dolli tamit lii di wopp si fii ci biir Sénégal ak fukki ak ñaar yoo xam ne am nañ ko ci at mii nga xam ne mooy waaj a jeex Sénégal nag tabax na ci ñetti hôpitaux yoo xam ne yu mag lañu ci wàllu njàng mi li ci gënoon a fës ñaataango Sud di ci yokku ne bokk na ci nag budget fukki milliards ñu defoon ngir rek wàllu tenue scolaire yi waaye tamit violence bi ñu nekk ci université yi ak tamit grève yu bëri yi nga xam ne kat dafay faral di am jalgati yi jalgati koppar ci yenn kër yu liggéeyukaay yi moo tax yenn kaay bi di laas moo ko bindee li

bi ñu doon présenté lu jëm ci wàllu document boobu yéen kat yu les écoles di fësal ne ñi nga xam ne kat ñu exploitant ñoo ci gën a gis seen bopp waaye liggéeykat yi kat ñoom dañ leen sonn lool suñu naataango di bind ne suñu naataango yemuñ foofu ñu ci yokk ne kat lu toll ci rek juróom-ñeenti junni ak ñeenti téeméer ak juróom-ñeenti nit ñoo ciy liggéey le témoin nag joxe chiffre atum 2020 bi nee na kat chiffre boo xam ne kat xel mën na koo nangu li ni mel tam lañ gis ci yéenekaay bi di l'info yéenekaay tamit del si wàll nañ ci li xew te puut daañ nee loolu dafa ñaaw lool loolu mu gën a fës ci yéenekaay bi di Vox Populi muy RADDHO Ligue sénégalaise des droits de l'homme Amnesty ñoom kat ñu ngi ñaawlu li nga xam ne kat moo fa jot am waaye tamit condamné bu baax a baax taxawaayu chef de boobu noonu bëgg nañ tamit kilifa diine yi muy julit muy tamit waa jàngu bi ku nekk nag dugal ci sa kàddu ndaxte kat li fi xew dafa ñaaw lool Sénégal kat war naa weesu foofu ci yéen kaay bi ba tey Alioune Tine mi nga xam ne moo jiite Africa Jom Sant yëkkati ci ay kàddu nee na kat li xew te pour daal moom dafa ñaaw loolu dafay na saxal sax lépp loo xam ne jëm ci wàllu république te tamit suñu constitution dafa yemale doomu Sénégal yëpp Alioune Tine tam baaraamu tuuma wàllu administration bi nga xam ne kat moom moo sooxee ne loolu war nañ ko joyantiwaat na mu gën a rafetee Amnesty RADDHO ak Sénégalais des droits ay kàddu ci yéen kaay ñaawal bu baax a baax doxalinu kii di chef de village bi nekk fële ca Pout Daañ bi nga xam ne kat dafa bañoon nag ñu denc nit koo xam ne kat dañu jàpp ne moom kat bokkul ak ñoom xeet ak waaso ci réew mi quotidien suñu naataango yi di fësal ne kat Sénégal war naa weesu foofu li ni mel kenn du ko foyee ndaxte kat dafay faral di indi ay jafe-jafe ci wàllu dëkk yi ñoom tom tam jàllale kàddu yi nga xam ne rado ak ku leen jóg di sekk ak yelef doomu aadama yàlla dinañ ko yëkkati ñaaru li nga xam ne kat moo xew fële ca Pout Daañ ci wàllu tàggat yaram équipe nationale Sénégal nag door na démb ca stade Lat Dior bu Thiès liggéeyam jëm ci wàllu CAN 2021 yéen kay bi moo ko fësal dañuy xamal ne kat lu toll ci def fukki gaynde ak juróom benn ñoo fa teewoon ci wàllu entraînement bi ñooñu nag bokk na ci kii di Kalidou Koulibaly li mel tam lañ fësal ci yéen kay di laas ci wàllu wér-gu-yaramam ba tey ci yéeni boobu mu yëkkati ci ay kàddu war na def seen kémtulaay kàttal ngir rek daal di sagal seen bopp waaye tamit sagal waa Sénégal yëkkati na tamit ay kàddu ci yéeni kaay bi di sàll bëgg-bëggam leen rek la fexe nag pare su ko defee rek mën a jongante match bu njëkk bi yéeni kaay bi la Soleil ba tey dafa desi waat ñun ci wàllu kaan bi ak tamit nataal ak ñun li jëm ci wàllu puul yi muy puul A ak puul B nee nañ kat bi ma ñaareel yoon boo xam ne kat dina am kaan boo xam ne ñaar fukki équipe ñoo ci teew ñun leen ci juróom-benn poul yoo xam ne kat ñeenti équipe la tey jii nag suñu naataango yi def nataal ci poule A ak poule B poule A mooy poule bi nga xam ne kat ci la Sénégal bokk nee nañ Sénégal ak Guinée nag daanaka ñoo fara teg tànk waaye tam war nañ bàyyi xel Zimbabwe ñeenteelu équipe bi nag moo di Malawi ci poule B bi Cameroun la pays hôte Burkina Faso Cap Vert ak tamit Éthiopie ci wàllu lamb ginnaaw ñaari fan moo des ci digganteem ak kii di Balla Gaye numéro 2 Bombardier démb am na open press fële ca Mbuur yëkkati ay li leer ba leer moo dina dëggal boppam digganteem ak Balla Gaye benn fan ci weeru bi ba ministre bi njëkk wàllu tàggatam di Matar Ba kañ gis ne ay kàddu démb nag jëmale ko ci fët-fët gi ñeme ko ci wàllu làmb ji ak rawatina tamit yàq gi ñuy yàq wàllu arène nationale bi ne nii ni mel kat ñoom nguur gi nag taxaw jël ci ay matuwaayam su ko defee rek jaamarloo ñi xam ne kat ñoo def kat yu ñaaw teef yooyu noonu kàddu yooyu Matar Ba mu ko yëg ci démb nag bu ñu jox wàllu prime ñii di athlètes yi Sud Quotidien di fësal ne nguurum Sénégal nag démb dafa jël décision ngir rek fay prime mu yi nga xam ne kat fukki at ak ñeent amul woon gëjoon na am ci Jeux africains amoon ci atum 2007 mu nekk fukki at ak ñeent yoo xam ne kat dañ ko def ngir joyantiwaat lu jëm ci wàllu injustice acte bu njëkk bi nag démb lañ ko posé ki ko posé moo nekk ministre des sports di Matar Ba Vox Populi di fësal ne juróomi téeméeri million ak fanweer la ñu génn ngir rek ak tamit ay athlètes Plusieurs sujets sont développés dans les journaux ce mercredi. Delta, Omicron, polio, crise du système éducatif tout en surchauffe, c'est le titre qui barre la de Sud Quotidien. Mon confrère explique, l'année a été marquée par l'arrivée des variants Delta et Omicron qui ont aggravé la pandémie de covid qui s'est déclarée au Sénégal en mars Il s'y ajoute la réapparition de la poliomyélite qui a fait un bilan de 12 cas. Durant cette année, le Sénégal par le budget de 10 milliards de francs CFA pour la confection de tenues scolaires la violence dans les universités et les nombreuses grèves. Recrudescence des détournements de deniers publics et infractions connexes selon l'AS, le Forum civil rappelle au président Macky sa promesse d'instaurer un parquet national financier.

Podlagne et ses pratiques musulmanes, c'est le titre qui barre la ligne du quotidien Vox Populi. RADDHO, Ligue sénégalaise des droits de l'homme, Amnesty, entre autres, manifestent leur indignation et condamnent fermement cet acte illégal du chef de village. Ils interpellent les chefs religieux musulmans et chrétiens pour l'éradication de la discrimination basée sur les castes. Dans le même journal, à l'unité d'Africa, Diom déclare que ce qui s'est passé à Dagnpout, c'est une sortie grave et intolérable. Selon lui, la défaillance de l'administration doit Amnesty, Rado, Ligue sénégalaise des droits de l'homme montent au créneau. Selon le quotidien Enquête, il décrit l'attitude du chef de village qui a refusé d'autoriser l'inhumation d'une personne au motif que celle-ci appartient à la caste des griots. On ne badine pas avec les traditions d'un revers de main, c'est le titre qui barre la une de Réumi quotidien. Dans le même journal, Les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent l'attitude du chef de village de Pourdagne. En sport, CAN l'équipe nationale du Sénégal a entamé hier au Stade La Dior de Thiès le travail en perspective de la CAN. Selon nos confrères du quotidien sportif Stade, 16 lions dont Khalidou Koulibaly était présent. 16 lions présents à l'entraînement, écrivent nos confrères du quotidien LAS. Khalidou Koulibaly était la grande attraction. Il soutient dans le quotidien sportif Stade qu'il espère être prêt pour le premier match. Toujours à propos de la Cannes, un casting très électrique, c'est le titre qui barre la ligne du quotidien national Le Soleil. Mon confrère explique que pour la deuxième fois consécutive, la Cannes se jouera à équipes réparties entre poules de 4 présentation des forces en présence groupe par groupe. Aujourd'hui, les poules A et B. Dans le groupe B, le Sénégal et la Guinée sont le Zimbabwe en troisième larron. Le Malawi complète le groupe. La poule A est composée du Cameroun, pays hôte, du Burkina Faso, du Cap-Vert et de l'Éthiopie. En lutte à moins de deux jours de son combat de confirmation contre Balagay Prévu le 1er janvier prochain à l'Arène nationale, Bombardier a organisé hier un open press. C'était pour lui une manière de communier avec les amateurs de la Petite Côte, selon nos confrères de Sunu Lamb. Dans le même journal, il déclare, je cite, Je ne recule pas, je ne connais pas la peur. Toujours en lutte, hier en marge de la remise de primes aux athlètes et fédérations de à Matarba a glissé des mots au sujet des violences dans les arènes. Selon L'État du Sénégal a pris hier la décision de payer les primes dues aux athlètes, dont certaines remontent aux Jeux africains de 2007. Le premier acte allant dans le sens de réparer cette injustice vieille de ans a été posé hier par le ministre des Sports Matarba, qui a lui-même fait l'annonce devant des fédérations sportives et le CNOS. millions de francs CFA dus aux athlètes de haut niveau de 25 fédérations, écrivent nos confrères du quotidien